ci kër gi fii may ko employé mais kenn ku nekk yaa ngi yor sa téléphone di calculer ku ne ñaata nga war a am mm-hmm. waxatuma laak nag lu toll ni xaalis boo xam ne ay milliards la mu war a dugg ci réew mi war a changer nekki ni dund doomu aadama yi loolu il faut nit ñi lijjanti ko il faut nit ñi wax ci te damay dolli li Serigne Sall wax léegi dafa am solo mm-hmm. sept cent milliards la ñu prévoir par an sur trente ans mais ci trente années yooyu noonu calculer wu ni population sénégalaise dafa yokku donc mënuñu figé wu rek ni 700 milliards lañu am durant les 30 ans. Mhm. Euh, Ndeye Dimet ñu àddu nag jëmale ko ci euh, euh, leneen waaye laataa ñu cee dem sax El Hadji Mansour ma may la ci lu gàtt rek nga sànni ci sa xalaat. mënuma mënuma ba ñu wax ci pétrole bi. comme dañu ni bu ci kenn wax dañu ciy wax. sëñ Saalum dafa am tuuti lu jar lu jar luqat ci ay kaddu. 700 mhm. milliards juróom-ñaari téeméeri milliards la ñuy ci am at mu nekk diiru fanweeri at. ñu defoon calcul ba noppi am répartition boo xam ne def nañu ko démb ñu ñëw change waat ci répartition bi am benn fonds bu ñu exclure muy wàllu stabilisation alors mooy li tax ñi koy exploité nekk ci jàmm ak dal ak fa ñu koy exploité mais fonds boobu lan moo tax ñu génne ko ci est-ce que kon mais du ñu mën a puusaat ci suñu ay gëstoo suñu ay suñu réflexion mm-hmm. ñu ni est-ce que kon sept cent pour cent yi ci am moom Sénégal est-ce que kon ña ci des di ko exploité amuñu double lañ ci wan a am question la parce que lu tax ñu ñoom ñu nangu ñu supprimer fonds boobu nga xam ni dafa am solo pour ñoom di leen défendre pour ñoom fonds stabilisation ci dëkk bu am pétrole kenn mën ko exclure kenn mën ko génne. Mhm. lu tax kon président présenté génne ko laaj na ñu def beneen euh, gëstu bu ñu approfondir ci wàllu pétrole bi. Mhm. Euh, li ci des nag mooy gëdd bi ñu jox pétrole bi. te zircon bi am gëdd boobu kenn faalewu ko phosphate bi am gëdd boobu kenn faalewu ko gaz bi am gëdd boobu kenn faalewu ko béton bi la même chose. Euh, bu weex ak bu ñuul cest di dire que suñu suuf or bi nag cest di que moo tax moo tax pétrole bi man man ak fer bi pétrole bi ni ñu ko yanoo te te loolu yëpp ñu am moo su askan wi gisuñ ci seen bopp ñu sax ni am na mhm. yow gaz en tant que journaliste bi nga génn am na mooy bi nga jëg a tàkkee nga soo yéen ñu ngi fi exploité gaz négatif mhm. dafay laaj na ñu poser ay questions ñii lan la ñu nam ak pétrole bi parce que moom nañu waxaale li ñuy waxaale ñu commencé koy exploité Sénégal bi ci boppam di yëg nii réew mu ngi soqaliku ci wàllu développement ci ay construction ci ay yamale façon bu équitable ci ñuy séddale koom-koom yi comme Dubaï comme Bahreïn comme Émirats arabes unis mais war nañoo am pétrole tubaab bi ñu dugg ci ndaje yi fii du loi yi fii texte yi fii yow mel ni doom ji waa ji juddu ci yàlla lay wàccee. Mhm. ñoo fi mujj am pétrole. Mhm. nga leer. Euh, jërëjëf Mansour ñu jaaree noonu dem ci seen rubrique seen xalaat. ginnaaw ñuy sant Sénégalais bu baax a baax di leen di leen jaajëfal bu baax nga fii ñu nekk nii tey dafa nekk àll boo xam si ay hectares yu bëree bëree bëree bëri vraiment problème moyen vraiment dina jouer si ñun ba ni ñu war a mën a exploiter àll bi duñ ko mën a exploiter te fii foofu bënn forage di am ndox pour zone bi yëpp man see def maraîchage nit ñi mën see gis seen bopp vraiment état li ñuy gën a soxla mooy nga jàppale baykat yi jàppale bépp askan boo xam mu ngi ci réew mi ndax réew mi tey bu fekkee dañ la koy jël dénk la la kaa joxoon pour bëgg-bëggee doomu adama yi nga mën see taxaw loolu mooy par réew tey di laa li lancé waale président de la république ak di ko lancé waale euh, papa Babacar ngoom loolu dinañ ko ko lancé ndax euh, da ñëw ba jandeer samp samp fi ay industrie yu rëy mais industrie yu rëy yi nga fi samp te tey gox bi gisuñu si seen bopp hôpital yi gisuñu seen bopp sport bi gisuñu seen bopp te yëpp dafa waroon fekk yow lépp loo xam ne xew euh, xew na yow war nga see dugal sa loxo bu baax ndax da nga kaa samp dëkk ñuy laaj ba xam ndax droit yi yow yaa ngi koy fay si commune de jandeer ni mu am fayloo ko loolu tey de jot na pour ñun ñu gëstu ko ndax ñu war nañ kaa gëstu lépp lu ma gis ni dafa war a nekk loo xam jëndeer mu ngi fay tardé ma taxaw pour xeex pour loolu dañ loolu moo tax ñuy lancé message di ko lancé Papa Babacar Ngom Ba. di leen wooye fii ci arrondissement bu Medina Sabax euh, commune Kaymor waaw village Karaye di leen wax ne fi ñu nekk nii ci campagne gerte bi ñu wax ci Saalum ba léegi nii ñu ngi dëkkee fii ci Saalum gisaguñ ci suñu bopp ndaxte gerte bi wala fi may wax ak yéen amul benn point boo xamante ni mu ngi jëndee deux cent cinquante nit ñi mën fa yóbbu seen gerte yi jaay léegi-léegi jox seen xaalis en plus tamit commerçant yi nga xamante ni ñu ngi dem si marché hebdomadaire yi si luuma yi ba léegi nii nii nii jëndewuñ kilo deux cent cinquante vraiment loolu métti na loolu métti ndaxte bay sañoon soo bàyyee am foo ko jaayee man faj soxla yi tamit waaw ndaxte baykat tamit li muy bay si la yaakaar pour faj ci soxlaa bi bare bare bare nuyu waa Sen TV waaw di wax ne dañoo dégg président Macky Sall mu naan gaz beeg pétrole bi ci kenn wax waaw Macky moom da koo dénk réew mi dafa jàpp ne moom moo ko moom lu tax duñ ci dañ koo dénk réew mi wala dafa jàpp ne moom moom moom réew mi dañ ko koo dénk rek di pourquoi duñ ci wax suñu alal la ñoo ko moom barke démb yàggul dara dégg nañ fi ancien premier ministre buñ jonn mu taxaw assemblée nationale di wax ne toq gaz toq pétrole mosul génn réew mi yàggul dara ñu gis fi benn gaz buy tàkk fii Gajaga ñu soog am information ne gaz boobu noonu ñoo ngi koy exploité ay at ma ngi doon génn réew mi ñoom buñ jaawale luñ moom ak luñ leen dénk waay réew mi ñun ñëpp ko bokk. di leen di jëfal bu baax a baax yéen itam mën ngeen def ñu ñoom ngeen yónnee ñu seen yaay vidéo ci whatsapp bu groupe des médias jaajëfal itam day di met ndaw El Hadji Mansour Diop ak Serigne Saliou Gueye ak yéen ñu ondoon ñun doon ñu seetaan ci Sen TV doon ñu déglu itam ci Zik FM dig daje bi ëllëg la incha allah 21 janvier arène nationale Balla Gaye 2 war a jóge Géejawaay ñu ne ko Balla Gaye 2 yaa ngi ñëw arène nationale mu ne su may ñëw arène nationale li sama papa Double Less daan def waa Dakaaru laay def damay jóge suñu kër golf daal dox ba arène nationale ma ne ko Balla Gaye 2 loolu nar naa metti de mu ne ma maa nga jëm arène nationale war a kan ñu ne bombardier xale bi dëkk Mbuur mu ne ni moo di ci tefesu su yi wàcc ci tefesu ndakaaru dox jëm arène nationale ma ne waaw ñii ndax dafa am ku leen digal dox jëm arène nationale bu leen yaboo ngeen waajal de le premier janvier Balla Gaye 2 Bombardier les 30 ans de Gaston Production ah le premier janvier fii ci ndakaaru lu waay jàppoon na ko bàyyi xam ne tailleur yi dañuy ñëw grand boubou yi gën a rafet musóor yi gën a kawe a sañse yi gën a rafet parfum yi gën a xeeñ maanaa yi gën a génn ñu daal di dem fan arène nationale lamb ji nag drapeau Alaaji Mansour Mbay mbay ma caaka nga xam ni réew mi ku ne mës naa séq ak yow teraanga Production lii Call. Offrez de l'or à votre partenaire. la soirée bi ñëpp doon xaar ce 24 décembre mooy soirée Kéba Seck attention fépp foo dem Kéba Seck xajatu fa pour dugg soirée Kéba Seck ma ne ko Kéba lii nañ ko génnee mu ne kon nañu ko génnee le 24 décembre ma nga Arsenal de la Marine ah mbokk yi Arsenal de la Marine Kéba Seck le 24 décembre kuñ ko parrainé ñu ne monsieur Assane Diop ak kan Khadim Fall transitaire Los Diaytar Couture Khadim Kassé Couture Cheikh Mbaye Nord Foire Saliou Ndiaye borom ndox mi kuy sa marraine mu nekkati création ak am caaj ak am feeling ak am maana ak mën a ñaw kuy sa marraine mu ne ay dëppal bu mambay ñaa kookoo yëkkati ndakaaru teg ko ci loxo mambay ñaa ramamaki fatima gumbala xadim buup ay aydara bolel sakho chéri aziz dieye rendez-vous le décembre à l'arsenal de la marine ay wajile ay soirée kebab